li ma fi gën a métti li ma fi gën mooy sama benn gaayan bi ñuy wax Ali Jaxumpa parce que moom mi ngi nekk ndar te info bii nii man maa ko wax maa ko ne booy mu ne ma naa ma ne ko am na benn gaal bu du war a départ yaraax pour dem Espagne mu ne ma lay wax nii ma ne ko lu leer xam nga si la ñëwee fii ñëw sama gàlle ma dalal ko xam nga après ñu dem joxe 300000 mooy moom ajoor ajoor la quoi xamul géej léegi bi ñu demee ba si biir géej gi si la commencé di neer di neer di génne ay affaires yu jaune affaires yu jaune yu yu vert yu vert yi ba si la commencé di wàccu la commencé wàccu liggéey noonu mu yére bi may sol nii nii moom moo ma ko jox man loolu moom gën a metti gars yi bi ñu koy téye di sànni sax lu ne wax naa leen ko saaga naa leen gars yi dañu ma yeewu tax ba mu dëgër sama gars yi di ma seetaan